bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu xaq di leen baal di ñaanal a Cheikh Seyd al Maxtaar sunu boroom yàggal ko fi daldi ko kattan ba mu mottalee naalam ak ay yéeneem ci liggéeyal xaadimu rasuul di ko ñaanal kilifa diine yëpp ak jullit yëpp ak taalibe yi di ziyaara borom atti bi cheikh Mouhamadul Mourtada Mbakke ibnu cheikh Abdoul Ahad danga koy ziyaare bu baax. ko ñaanal sunu borom yàggal ko fii te wëral ko te dëgëral ab taxawaayam ba yéene yi mu yéene yépp ci liggéeyal ko maamam sëriñ Touba mu defe ko ni mu ko bëggee ci barke Xaadimu Rasuul di nuyu jawriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci bërëb bi di nuyu sëriñ Sidi mi nga xam ne moom la doon jokkool di jéggulu Serigne Mourtada bi doon jàng léegi ci njàng mi ñu dog ñoo ngi koy jéggulu bu baax ko ñaanal yàlla sunu boroom def ko mag te wéral ko defal ko barkeb xasaayit di sant yàlla ci jataay bii ci bis bu mag bi nga xam ne mooy bisu Cheikh Abdoul Ahad te Cheikh Abdoul waxtaane ko mooy waxtaane Serigne Touba waxtaane ko it mooy waxtaane alxuraan waxtaane ko mooy waxtaane dëggu ak dëggal ak kennal Sëriñ Tuuba di boroom féex yoo xam ne nag dafa bokk ci may yi yàlla may Sëriñ Tuuba nga xam ne sunu boroom moo yor ngëneelam te ku ko soob la koy jox bu Sëriñ Tuubaa waxee ne yàlla may na ma lu kenn mës la am euh, ba noppi tekki na te kenn duutu ko am loo ca tànn rek mu xam muy jëmmi boppam wala muy mbindam wala muy njabootam loo ca tànn danga cay fekk baatu lu ko yàlla may te kenn amu ko te kenn duutu ko am waaye Cheikh Abdoul nag dafa bari ay tawféex ci Serigne Touba bokk na ci ay tawféexam mooy béréb bi mu feeñee te mooy njaareem di béréb boo xam ne bi fi tubaab yi di yóbbu sëriñ bi dañoo jàppoon ne bu ñu ko fa yóbboo am dara ci li ñu bëgg ndax xam ngeen ne jaxasoo gi nit ñi di tàmbali jaxasoo nit ci adduna bi di dem ci marché yi loola di wàññi seeni leer tubaab bi jàpp ne bu sëñ Tuubaa demee foofa mag ñi gëm gu dëgër gi ne ci ñoom dana wàññiku fekk na am na meneen mbir yu ca yàlla lëm yoo xam ne sëñ Touba nee na buñ ko xamoon ñoom duñ sàkku sax man may dem njaareem loolu moo tax ba muy leeral ca bayit ba mu wax ne raamu masiri ila jurbel la daa lësasin law ayenu sirra ma fi sayri marraamu sàkku nañ sama dem njaareem ci atum lësësin di 1330 waaye la wax ayinu sirra maa fi sayri maaraamu buñ xamoon la ne ca biir duñ ko sàkku ndax ñoom dem gi dee la ci ñoom képp man nag ak des la ibghaa'un wa ikraamun ak des ak tedd ngay suñu borom rekk la dëkk boobu la Cheikh Abdoul Ahad feeñi jamono ci 1914 bi mu feeñee jamono it Serigne Touba wax ci moom loo xam ne lu yéeme la nga xam ne keroog bi mu feeñee jamono jëmmi lislaam moom moo sigéré sigéré wane ne am na ndam ndax ki koy aar di ko yëkkati feeñ na jamono keroog bi ñu ko tuddee sëriñ Touba moo wax ci làmmiñam wax ne képp ku mën aw turam sa yaram araamal na sawara xam ngeen ne gan gu gane si jamono ëndaale ku mën sa tur yaramam araamal na sawara nga xam ne abudul ahad mag ñi dañ ko doon bind bis boobu ci lu mel ni ay pancarte ñii di ko bind ci garab yi kenn ku nekk di ko wax di laaj ka ca des déglul ma ba xam mën naa ko nga xam ne njaareem gépp da riir ci abdul ahad abdul ahad ngir li sëñ Tuubaa ne ku man aw turam sa yaram araamal na sawara waaye sëriñ bi tegaat ci it am naa ci moom yaakaar te sëñ Tuubaa na sama yaakaar lu tas mukk waaye sëriñ bi tegaat ca leneen it bi si am Lahad ganee jamono dafa wax ne fekkul ci àdduna ku ko gën te ku ko gën fekkoo àdduna nga xam ne kon nga ne lu rëy la ko yàlla tànnal def la ko ko moo tax ba ko tàggkat bay wax la ko wax ne ko ظهرت في بقعة المرجو بلسته أقمت فيها لسق لست مفتضحا yaa ngi feeñee ci albuqaatul mubaaraka di njaareem ci atum balsasin ca nga feeñ muy atum 1332 doon 1914 nga sax fa ab diir nag su ma taqalta li tuuba bil idni mumtadila taalluman taxta xaalin xaaluhum di xam ñu jële la fa jox ko nijaayam ngir lan alquran mu teel ko watt lool ndax xafista fi damsasin kama nasaxta lahu fi hamsasin wifqa maa qad waada man samaxa teela a wattu alxuraan teel koo bind waaye teel a melo yoo xam ne mboole mbooleem lax axlaq yépp dafa daje ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nekk koo xam ne bu ñu ko doon misaal la bindkat ba waxoon na Cheikh Abdou Lahad dey fatan shujaaun zarifun laysa himmatuhu ila alladi rabbu yurdi fa huwa aasimuhu nee na jàmbaar dëgg mooy Cheikh Abdou Lahad nee na amul jenn yitte lu mooy la yàlla di gërëm rek la yàlla bëgg loola rek mooy yitte Cheikh Abdou Lahad fil ilmi bahrun naam am waajuhu xikamun bi his dara dur wala yaaxootu fahimahu nee na bu dee da ngay natt Sëñ Abdou ci xam-xam Sëñ Abdou géej la goo xam ne ay duusam mooy xekam nee na mooy koo xam ne it moom Cheikh Abdou Lahad nadbun jalilun shakurun aabidun yaqisun salimu sadrin sabuuxun la yuzaahimhu mu ne sang bu mag mooy Cheikh Abdou laxat di sant yàlla di jaamub yàlla di ku yeew di borom dënn bu yaatu di koo xam ne jiitu na ñëpp kenn jotul Cheikh Abdou Lahad ca fa nekk mu ne xubbul ilaahi wa ikraamun xalaayiquhu xelmun wa sabrun wa ixlaasun lawaazimuhu bëgg yàlla ak teral ay mbindeefam ak lawet ak mën a muñ ak sellal yooye la Cheikh Abdou Lahad àndal mu ne nuurun li ahli huda naarun li ahli rada fulkun li saaliki subulil fawzi saalibahu nee képp ku ne ci ak jub di bëgg lu baax Cheikh Abdou Lahad mooy làmp bi lay niital ba nga amuk jub waaye képp koo xam ne nag ci ak ndëngte nga nekk mooy sawara wala elak ku soobu bëgg a yegg ci yàlla it gaal ga nga mën a yëg ngir yegg ci yàlla mooy Cheikh Abdou Lahad mu ne Cheikh Abdou Lahad mooy koo xam ne kam zi dalalin garibin fi buxuuri rada an qasta law laaka ardatu mazalimuhu bari waa koo xam ne ci géejug lëndëm ak alkande ak tumuranke ca la tabbi yaa ko muccal yow sëñ Abdul yaay koo xam ne it fa anta mucjisatan lil xaadimil wazari wa anta waarisuhu xaqan wa xaadimuhu hmm? mucjisa laa kawtéef laa ci yonent bi noonu la sëñ Abdul Ahad nekkee kawtéef ci Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa nee na yàlla desal na ma ci kaw suuf may kawtéef ci yonent bi sallallahu alayhi wa képp ko dëppoowul ak man loo ragal rek ngay dajal abxayta nii mu'jizatan lil muntaqa wa man lam yuwaafiq nii laaqa mattaqa mu'jiza bu ñuy tuddee lu ñuy wax mu'jiza muy miracle mooy li yàlla di jox ab yonent nii alxuraan nekkee mu'jiza noonu la sëñ Tuubaa nekkee mu'jiza ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nee na sama lépp kawteef la kulliyati mu'jizatun kon lépp sëñ tubaa kawteef la waaye ni sëñ tubaa nekke mox ji sa nag ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la Cheikh ab Lahad nekke mox ji ci sëñ tubaa waaye wa anta waarisu xaqan wa xaadibuhu yaa donn dëgg-dëgg sëriñ tubaa yow Cheikh Abdou Lahad yaay ki koy liggéeyal yaa donn sëriñ tubaa dafa am ko ko waxoon ne ko fa ka annama bambal xadiimu xaqiqatan aada saqsan ismuhu abdul ahad yow di sëñ bi ñu la gisee ni ni la natte daal mooy dafa mel ni sëñ Tuubaa dellu siwaat jamono soppi aw turam tudd abdul ahad waaye yow daal ni nga mel ci ci njàmbaar mel ko ci dogg mel ko ci jàpp ci xam-xam sëñ Tuubaa rek nga yaa xayra man warisal xadiimu wilaayatan wa diraayatan wa shijaatan yaa aylam yaay ki gën ci ñu donn Sëriñ Tuuba ci wilaaya ci xam-xam ci njàmbaar wax ko man xaasakum bi siwa xadimil Mustafa fa xad iftara mubinan faalamu képp ku la natt ci kenn di la gam-gam kenn ku dul ne yaay Sëñ Tuuba rek nee na nar na nar wu rëy ndax yow mënoo doon kenn ku may sëñ Tuubaa yor Cheikh Abdou lan la Cheikh Abdou Lahad doon mooy xéewalu yàlla ci kaw suuf lan la sëñ doon xéewalu yàlla ci kaw suuf Cheikh Sidiye ba muy tagg sëñ Tuubaa dana innama cheikh niama dana sëñ Tuubaa mii daal xéewalu yàlla la waaye sëñ Abdou Lahad it ba ko tàggkat bay wax da ko wax ne ko yaa ni'matallah fi afaqi jumlatiha yaa man ka fi'laka lil ihsani ma fa'ila dana ko yow Cheikh Abdou yaay xéewalug yàlla ci gox yépp gox bu nit dem bu làmbee rek na muy daje xéewalug yàlla noonu la lay daje yow Cheikh Abdou waaye man ka fi'laka lil ihsani ma lil jëf ji nga jëf yow Cheikh Abdou kenn jëful jëf ju tol noonu kenn mës la jëfit jëf ju mel noonu ci ak rafet ak mat kon loolu day wone mat goo xam ne suñ boroom defal na ko euh, Cheikh Abdou mu di koo xam ne it ku jeexoon takk ci Sëriñ Tuubaa la lii xew léegi ñu naan kennal Sëriñ Tuubaa bi Sëriñ Abdou Lahad di kennal Sëriñ Tuubaa ñu bari ñemewuñoo wax loolu suñu bilax doon wax xam ngeen ne yàlla lañu war a gëm yàlla la war a wóolu yàlla la war a yaakaar te suñu laxat fii moo waxoon fii ne gëm ak wóolu ak yaakaar ak ragal sëñ Tuubaa lañ koy def kon wone na ne bu dee kennal sëñ Tuubaa ak ber ko rek ba ko Cheikh laxat Ahad di jàngale kenn ñemewu ko te tëj ji fu neex nit taxaw kuréeli kennal sëñ Tuubaa yi du jeex nit ñaa ngi kennal sëñ Tuubaa béréb bu nekk ña nga naan fa ña kennal te kenn mësu ko ngeme ba ko suñu bilaxat di wax bëgg sëñ Tuubaam nag la koy fooñal boo bokk na ci mbindum boppam am na xasidaam goo xam ne nanga ko tëggee yaa man bi nuuri jamaalihi natakarramu wa bi xidmatin li janaabihi nataallamu Cheikh Abdou ca biir xasida ga da cee wax ni qalbi lu shukrika qad daatuhu mahabba yaa man ataani minka sirran yaktamu sama xol bii man Sëñ Abdou Lahad di yow rekk lay sant yow Sëñ Tuubaa yow képp la bëgg yow Sëñ Tuubaa te bëgg googu ma la bëgg yow Sëñ Tuubaa man Sëñ Abdou Lahad jural na ma secret yoo xam ne dama koy nëbbu waaye du feeñ mukk wuddi wa shawqi wal mahabbatu kullaha wajjahtuha lakka yaa imaaman yukramu ñetti mbëggeel yi moo am al wuddu al mahabba al shawq nit mënta jéggi état bi bëgg yooyu sëñ Blaat nee na sama cofeel sama bëgg sama nammeel kullaha lépp wajjahtuha lakka yaa imaaman yukramu bu ma dee bëgg wala may am lu may yëg jeexal naa ko ci bëgg la yow Serigne Touba lakka yaa imaami xidmati wa mahabbati maa dumtu xayyan anta suulil azam sama liggéey bépp ci yow laa koy jëmee yow Sëñ Abdou sama cofeel gépp yow laa koy jëmee diirub maa ngi dund sama yitte ji gën a rëy mooy yow Sëñ Tuubaa Sëñ Abdou Lahad na boo ma doon laaj lan mooy sa sa ji gën a rëy sa bëgg-bëgg gi gën a rëy looy sàkku gën a rëy Sëñ Abdou Lahad nee na sama sàkkuteef gi gën a rëy mooy Sëñ Tuubaa daal di waxit ne ko yow Sëriñ Tuubaa kat tasfu mahabbatu kalkali lakk sarmada insha aman bi na nataradnamu sama cofeel gii ma la sopp day sax dakk di sell ci sama xol bii ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na kanzi widaaduka wal tubaarik fi lladi qad xuttahu lii min ayaadi tanzam nee na aw ma benn denc aw ma trésor aw ma ndàmb aw ma ay kont lenn képp laa denc mooy bëgg sëñ Tuubaa sëñ Abdou Lahad nee na samam sàq mooy bëgg sëñ Touba samay compte banque mooy sëñ sëñ samay gaal mooy bëgg sëñ Touba daal na azzi huna wa hunaka kawni abdakumu wa xadimakumu bi mahabatin la tukutabu sama tedd ngay adduna jii ma am ba ñëpp xam ni ma mel te am tedd nga ju raw jooje yowmal xiyaam nga lu jëm maa ngi ko amee ci doon ngi ma doon jaamu sëñ Touba di liggéeyal sëñ Touba daan na bëgg gi ma bëgg sëñ Tuubaa nag mënatuma ko nëbb bu ma doxee mu feeñ bu ma waxee it mu feeñ kon sama bëgg lépp man Cheikh Abdou Lahad mooy yow sëriñ Tuubaa waaye sama texe ëllëg it fawzi bi hubbika jaadali bi matalibi sirran wa jahran minka yaa mutaqaddam mbooleem lu ma doon sàkku di ko bëgg maa ngi ko amee ci bëgg gi ma la bëgg yow sëñ Abdou Lahad moo tax boroom xam-xam ba ba mu ñuy misaal sëñ bi daal ko tagg dafa wax ne abdul ahad mbakke cheikhi xudwati sanadi bal walidi xat xabaana shuhratan wa ula huwa shujaa huwa almiqdaamu qaiduna ila siwa sirat almustaqimi bala nee na sëñ bi mooy jàmbaar mooy njiit li ñuy wammat jëme ñu ci yoonu jub ka xaalid ibnu walidin fi shujaati aw kabni ammi rasulillahi xul masala nee na bu ñu la doon laaj sëñ Abdu Lahat kan lay nuru ci jàmbaar ya neel moom de xam naa xaalid ibnul walid mi nga xam ne bi mu duggagul ci lislaam bokk na ci li esegal jullit ñi ca oxot xaalid ibnul walid bi mu duggee ci lislaam ñu tudde ko sayfullah al maslul mu ne ko bu ñu la doon misaal ci njàmbaar ak fit daal dan naan yow yaay xaalid ibnul walid wala yaay sayduna ali karamallahu wacca ci ak njàmbaaram te sëñ Tuubaa taggaloon na ko ca xasida ga tudd raiya waxoon na ak njàmbaaram ak meloom mu ne xamaa madinatu Touba zaadaha sharafa wa amana al jiraan wa nuzala nee ki aar Touba senge ko mooy Cheikh Abdou Lahad xam ngeen dëkk bu dul Touba ñay niti adduna sax am nañ ci sañ-sañ waaye Touba moom titre foncier la koo xam ne kenn amu ca sañ-sañ li li li li li yoon di am ci ab dëkk sax di ko am sañ-sañ du ko am ci Touba mu ne yaa aar Touba yow si Iblahat dolli ko ab taar sécuriser nag ña fa dëkk ak ña fa di gan di fa wàcc di ñëw yaa leen aar ñoom ñëpp dëkk boo xam ne boo doon wër marché ba doo ca fekk benn marché bu ñuy jaayee sàngara dëkk boo xam ne amul stade dëkk boo xam ne amul benn bérébu caaxaanukaay nga xam ne amul Touba amul otel bu nit di defee lu ko neex waaye dëkk la boo xam ne bam koy tere li fi tere dana sama bakkan bii laa ci teg wa tahara al ard wal aswaaq min najasin wa min xaraamin wa min lahwin wa mashtamala xëy fii tere fi tux te tubaab yi dem nañ fi ne ba léegi ñuy tere tux li tax suñu di yéeme bi muy tere tux ñi daan tux te mënuñu ko bàyyi sax mere woon nañ am na ku xoromu koo xam ne daa tàmmoon tux lool bi suñu blaat tere tux du du tudd turu suñu blaat daa muudu lay lay wax muudu lay ah muudu lay di damaa xam ne yan bi nga ko yan du ko ëttalu ndax lii muy tere moom du du kenn mën a bàyyi nga gis ne dem na ba tubaab yi sax ci béréb yu am yi mbooloo di daje yëpp dañ fa interdit ku fa tux xam ngeen ne baadoolo mooy ne ci biiru oto jekki-jekki ne ne la ñit taalub cigarette wala bala place publique boo xam ne ñëpp a fay toog nga ñëw taal loolu ci Afrique lañ ko ngemee waaye ci pays occidentaux yi kenn ngemewu ko faa def bari na civilisation goo xam ne wala tey bari na ñoo xam ne melo win am buñ génnoon fii woowa melo kenn du ko melowoo ci tubaab yi te melow yi tubaab bi jàngale yarub diine ko jiitu moo tax yàlla lu la tere rek ngaañe ca nekk tey jii dem nañ ba jëlale nañ ñi tux di faat nga xam ne ñoo koy tux ñoom mu faat leen cancer yi leen di jural ak yeneen yi waaye kii toog di noyyi sa saxaar si rek ay junni ñoo ciy dee par at gis nga nag sëñ bi daal tere ko nga xam ne waxuma da ci ne ci saayir waaye médecine yi sax couvre découvrir lañ ne xam ne tux li muy créer kenn xamul nu mu toll. nga xam ne léegi tubaab yi ñoo koy ñoo gis ñu tere tabac di ko interdit te ñoo ko daan liggéey léegi dem nañ ba di ko tere. mu ne waaye walil bana walil xadiimi bana xasran wa maktabatan fiiha wa jaamiatan foofu ibnu jala tabaxal sëñ Tuba kër ñu naan kër sëñ Tuba. mu tabaxal ko daaray kaamir te mooy bibliothèque bi defal ko université yemut ca loola it moom Cheikh Abdou Lahad mu yor melo woo xam ne mboolem ñi yàlla sédd ab cër ñëpp xam nañu cër boobu ko suñu borom jagleel ci ak dogu ci aw fit ci ak dëgër ci ak taxaw loola doy na ci misaal bi mu génnee àdduna saw tagg dutu dutu fay borom xam-xam yi bu dajee yow yaa leen jiitu yow simb laxat te nga nekk ci ak tab kenn jotu fa daan na ko kam min faqiirin kaibin xalla saatukum wa aba yashkurukum kam kam wa kam wa kabi daan ko bari ku ñàkk koo xam ne bu ñëwee ci sab ëtt yow simb laxat buy dellu day sant daal na bari na bari na bari na na ko shayatumu kullama xat kaana mun hadima min baax di waalidikumu yaa safiya siyam yi daal na ko lépp lu màbboon sa ginnaaw baay yaa ko tabax yow sim laxat loolu alaaji Abdou moo ko waxoon ci Cheikh Abdou Lahad bokk na ci melo woowu ko yàlla jagleel ci bëgg sañ Tuba ay bindam ba tey moo waxoon ne ataytuka al yawma bil inqitaai kulliyati yaa xaadimal mutaa adxaltu fi jaybika yaa mawlaaya kulliyati faltafinil balaaya jox naa la sama lépp yow Serigne Touba te duutu dokk jël naa sama bopp tàbbal ko si jiba tàbbal ci sama lépp faltaxmi qalbi an iltifaati ila siwaaka wa an il afaati nag ma fegal ba sama xol bii du xalam dara dara lu dul yow maanaam sama xol bu ci dara nekk lu dul yow Cheikhul Khadim kon gis nga ne daal di say ñaan it wa dumma nii ila alladina xadamu bi la ali yaa muqaddam nag ma boole te ña nga xam ne dañuy jóg di la liggéeyal ndax xam gi mu xam njariñ li nekk ci liggéeyal Serigne Touba bokk na ci melo yooyu ko yàlla jagle loon dafa ko wax am ko wax ne idan naasu xaalu man saimal wara turra ashartu ila abdil ahid alladi barra xalifatu xawsul xalq qalban wa qaalaba wa xissan bu fekkee ne nit ñi laajoon nañ ma ne kan mooy njiitul mbindeef yépp nee na damay daal di junj sëñ Abdou Lahad rek daal na sëñ Abdou Lahad mais moo jiite bindeef yëpp nga xam ne ci ak yéemeem te dégg naa ko ci kenn ci ay doomam muy sëriñ Mahmoudan mu ne dafa am benn taalibe sëñ Abdou Lahad bu ma sa ñëw fii moom wéeréer di mu yabal ko sëriñ Chouaïbou bi mu ñëwee sëriñ Chouaïbou silwiise géeg teey géeg dal gi mu jekki-jekki wax sëñ sëñ bi ne ko man de xam naa damaa jébbuloon sëñ bi laaxat waaye kon danaa dama ca xas jébbulu ba noppi waaye kon damay jébbulu ci yow nee na sëñ Cheikh bi na ko sa góor googu xanaa xamoo ne na ko sa góor googu Cheikh Abdou Lahad xanaa xamoo ne sa góor googu jamono bii jant bi ak weer wi mu ngi ci loxoom daan na ko jant bi ak weer wi mu ngi ci loxoy sa góor googu Cheikh Abdou Lahad Mbacké kon bu ne laaj kat mooy njiitul mu def yi mu ne ko moom la mu ne kat aqaama bina nahjal xaq bi sunnatil xora dafa taxawal diine ginnaaw bi mabbee nit ñi woon ci caaxaan bëgg àdduna bëgg am fo lu neex nit def mu ne kan nag moo leen jële ca loola mu ne mooy Cheikh Abdou Lahad mu ne mooy koo xam ne moom Cheikh Abdou Lahad mook Sëriñ Tuubaa benn lañ yu dakkiru fi xaalihi xaala cheyqina xaddiimi rasuulillaahi barran kada baxra nee na buñ gisee sëñ Abdou Lahad daf nañ fàttali jëmmi sëñ Tuba melaw sëñ Tuba wala ñuy fàttali daal dafa xaaluhuma si yaani laa garwa fa inna tara rashahu mimma bihi sarmalan dëhra boo gisee sëñ Abdou rek mu fàttali la jëmmi sëriñ Tuba mu nga xam ne mépp mbir sëñ Abdoulahi Jaxate moom sëñ am sëtu Jaxate nga xam ne sëñ am sëtu ak soxna Mareema ak soxna Fat Jaxate ak sëñ Mbàkke Jaxate ñoo bokk lépp sëñ Abdoulahi ba muy tagg sëñ Abdou dafa am ay jikko yu am solo yu indi ci jëmi sëñ Abdou Lahad dafa waxoon ne sëñ Abdou Lahad de mooy faxrul muridiina man afda dama satahu li ali walidihumu man huma kasida sagub murid yi seen titre mooy Cheikh Abdoul Ahad mooy ki nga xam ne jeexal na dundam gépp ci mbégteem njabootu way juróom waaye ci taalibe bi yëpp daal na mooy koo xam ne it bi bab li juudin yaxiidul mar xesu naxa maa naa la maa raama man yabgi lahu masala nee na ci waamewu ngëneel ci ak tabam lay sotti ci képp ku ñëw fi moom nee na kenn daal moo mënta am li muy wut ak li mu bëgg mooy kii wër ne bëgg na maa gis ku mel ni Cheikh Abdou Lahad nee na boo doon wër ci àdduna doo gis ku mel ni Cheikh Abdou Lahad mu daal di wax ne Cheikh Abdou Lahad nag mooy koo xam ne yumnaahu baxaru nada yusraahu sayfu rada yurdil ahaadi wa yuxtil xibba ma amala nee na nday juurub Cheikh laxat Lahad géejug tab la ci bépp soppe bu ñëw bëgg xéewal waaye càmmoñ ba nag jees yi alkande la daal di wax ne mooy koo xam ne yu taabioxal mar daa amdin wa yasfau an di galatin wala yubali bi la si jëhi la képp koo xam ne da ngaa juum ca la ngay def seeb la jéggal la ku ko tay nag mu topp la waaw wala yubali bi la si jëhi la nag mooy képp ku réer du la faale moom Cheikh Abdoul Ahad moom nga gis ne melo woowu mu mel ci mës sa nungu ku tudd Sëñ Tuubaa boole kook dara yar nit ñi ci dëgg nga xam ne boo déggee kàddu Sëñ Abdu Lahat ga nga cay soññiku man gi man alxuraan ak pas-pas bu dëgër bi ne ci moom nga xam ne saa yu tàmbalee tudd Sëñ Tuubaa rek sa bopp boo dégloo waxtaanam mu wu man di waxtaan saa yoo déggee mu tàbbi ci Sëriñ Tuubaa rek da ngay yëg ci biir wax ji xam ne Sëñ laxat mii tàggoon ak sagoom ngir sëñ Tuubaa mi muy waxtaane dogg goo ko yàlla mayit ak pas-pas bu rëy boobu taxoon na ba mu xam ci alxuraan loo xam ne kenn mësta xam loola ci alxuraan doomu ju dox mu Mouhamadul Mamoun Mbakke nga xam ne fa laa yenn nettali na ma ne am na bis bandub alxuraan lañ teg ci biir ci kees gi seeb daal ne ca geneen kees gee nekk fa ak ci mag ñi sëñ am satum borom daaru tuddoon na ko ca sëñ Bachirou Moor tuddoon na ko ca moom sëñ Moor soxna nee na ñuy jàng band bi ne ci kees gee di jàng ba yàgg sëñ Abdou Lahad wëqali ci poos bi yëpp jël ko ci kees gi nee na tàggoog sagoom ba ba doyatu ca mu wax ne nag wi fii waa kër sëñ Masamba Diop Samb andi woon ci bëccëg nañ ko daal di defar léegi léegi léegi ci guddi gi ñu daal di dem fay magnetophone bi ngir xam ne sëñ bi tàggoon ak sogoom ci ci alxuraan ci ba yàgg mu ne moo man lu may bëgg a dal waat naa ci yàlla na de band bi jàng laaya jum tudd asamaan si nee na xay sama borom xamal ma laaya ju lu tax mu wàcce ko ak lu ci jublu saa band bi jàng rek aaya bu tudd asamaan si nee na nga feet suñ borom xamal ma laaya ji mu wàcce jooju ñuy wax lu tax mu wàcce ko ak lu mu ci jublu nga xam ne kon kenn mës sa mën a déggandoog sëñ Abdou alxuraan saa yu ma sa tekke sëñ Saliou bu mu baax ma daana wax ne kilifa gu baax ci réew mi sëñ Saliou daa bu yàggoon ak defe naa dana jébbalu ndax naw gum nawoon sëñ Abdou Lahad ci man alxuraan man koo boole ci mépp mbir mu mën a doon léegi rek sëñ Modou tekki na ko wax na ko ne ci fit yàlla jagleelu moom sëñ Abdou naa kenn ku mas a ngemee ngemee saaga ab député sax wala nga ne ko kàcc na amut waaye njiitu réew ba ndox ba noppi nga ne ko kàcc nga mag day wax dëgg loolu kenn mësu koo ngemee wax séeb daat ci nga ko mës a déggee duutu ko déggaat am na ko mës a saaga ab de ñu nettali ko kilifaam mu ne ko danga ko éviter invité ko mu invité kilifa googa palais kilifa ga ñëw gis garde rouge ak gaa taxaw mu bi mu duggee ci palais bi rek président bi yow de xanaa ku lay saaga da xamut nga xam ne waxagun ko dara moom nañ ko dàll rek mu ne ko ku la saaga de xanaa doo ko topp ndax xam naa da laa xamut rek kon gis nga ne Sëñ Abdou Lahad boole ko julli nag ca palais président yemu ca mooy fi sëñ tubaat jullee woon ci géej gi Sëñ Abdou ko xam nga xam ne bi muy bi muy dem Côte d'Ivoire wone na ci biir bato bi na ba yàgg ki mu àndal mu ne ko mu taxaw mu ne ko fii la sëñ Tuubaa jullee woon ci géej gi nga xam ne loolu dalay wan ne lim xam ci sëñ Tuba ak fi mu toll ci sëñ Tuba ci jëf ju rëy yoo xam ne aw melo rek lay jàngale loola nag la muy jàngale mooy wane ne bu nu amee référence yu mel noonu ku mel ni sëñ Abdul Ahad nga xam ne bu dee xam-xam kenn du ko jot bu dee bëgg yàlla kenn du ko jot bu dee sàmm kenn du ko jot ba noppi mu mën a mel nii mu mel ci sëñ Tuba di ko di ko jàngale di ko jàngal nga xam ne jom jooju la ku ne war a am ci noonu mooy jomi wéetal sëñ Tuba jom yi ber sëñ Tuba jom yi kennal sëñ Tuba tamit dëgg dafa sama kilifa gu ma nettali ne moom moom mooy bés sëñ la Lahad ba yàgg mu di ko laaj da koy bés guddi ba yàgg mu di ko laaj ne ko waaw sëñ Tuba moom nu da ko laaj ne ko ci réew mi ñi fi nekk ay waliyu ak ñi am ngërëmul yàlla léegi-léegi mu ne ko diw waliyu la diw am na ngërëmul yàlla di ko limal nee na ba yàgg mu ne teg nee ma ne ko waaw sëñ Tuba nag nee na fi mu tëdd sóonu ko ci suuf si nee na day battar ñu ko naan moom kooku nag kenn du ko tudd tudd ñee maanaam kooku kenn du ko tudd di tudd ñee sëñ Maxtaar Mbakke doomam mi netti na loo xam ne nee na day dox fii ci jumaa ji fakka salu bi mu fakka saloo di wax sëriñ Touba ki mu àndal wax Cheikh Abdou Lahad bi sëñ na ko bi may fakka salu loo wax mu ne ko booba maa ngi naan Cheikh Abdou Lahad mu ne ko accam la gën ko ma woo boobu maa ngi naan Serigne Touba kon wóolu Serigne tubaa kenn mënu caa jot Cheikh Abdou Lahad loola nag lañu war a doon ci aw fit noonu ko ci njàmbaar te loola la jeexantale ci njabootam gépp Cheikh Mahamadul Mourtada mii dey yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko boo demoon dëkk bu ñuy wax Côte d'Ivoire boo leen laajee jàmbaar dëgg nan naan la Serigne Mourtada ngir kër Sëñ Tuubaa ya fa taxaw ak jëf ya fa taxaw wala nga dem seet bis ba ñuy tuddee bisub Garam Bassa nga xool tey jii kër sëñ Tuubaa ga nekk basam xool taxawaayu sëriñ Murtada te aw fit ku yéeme la dafa am bis ñu daje fii ci kër sëñ Tuubaa bi di am lu ñuy waxtaanee booba maa nga fa ñu daje ba noppi jël presse bi di waxtaan te nu mu ñu tudd ay tur sëñ Murtada jóg ma topp ci am na ko waaw sëñ bi lu tax taxawuloo mu ne bu mënta tuddi tur koy Murtada dem ne fii léebu koy ak di di junj du ma ci fekk dañ naan tudd tudd tur yi direct rek mënuñu ko man ma dem te booba kenn ñi mu tudd tur ñoo ñuy wax kenn moom moo waxal boppam ne dañuy tudd tur wi rek moom sëñ Mourtala mu ne faw ñu tudd tur wi tur wi. Eh,